jafe-jafe yi ci njàng mi jurati beneen ndaje diggante nguur gi ak jàngalekat yi waxtu wii waxtaan yi di wéy waajuru ndongo yi bokk ci UNAPES di dànkaafoo yëngu-yëngal bu juboo amul la borom woto yi jaar ca pont bu nga ca diwaan Fatick xëy gaare seen ni woto bañ a dem njëgu si yu nag yu pont boobu lañ bëgg ñu wàññi ko cawal juróom-ñaari milliards yi nguur gi nar dugal ci defaratuk building administratif di wéy ay député yu nguur gi ak kujje gi joxe ci xalaatu bu euh, forum civil mi sàkku ñu taxawal commission d'enquête ci assemblée nationale ngir leeral mbir mi eh, xalaat yi wute na ci ñaar wàll yi gëstu bés bi ñu jagleel ko wax sa xalaat yi ci rajo yi wax sa xalaat nag yàqute ji ndax politique ak lu la neex waaye wax ci mbir mi eh, daañu ci teg bitim xibaaru bitim réew tàggat yaram ak li ci yéenekaay yi jeexle ak gis-gis ñuy waxtaane tey eh, wàllum njëkk yi nga xam te ne nguur gi wàññi na ko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 koom biñ denk wàllu finance ak budget dañ ciy déglu ministre Aminata Assome Diatta ci micro Nafissatou Silla. Nous travaillons toujours avec les différents acteurs pour quand ngi waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom la mbir mi soxal ngir ñëg yi euh, bañ di yokk saa su ne loolee sax euh, tax na euh, ma daal di signer ab arrêté de blocage ci li nga xamante ne moom moo soxal wàllum aliment de volaille bi ndax gis nañu ni jamono ji sax dafa yokk hausse boobu nag seetlu nañu sax ni du lu war te nag fan yi ñuy dëgmal rek dina am reprise os boobu nag seetlu nañu nuy du lu war te mën na am ay njeexital ci li nga xamante ne euh, moom mooy njaayuma volaille bi ginaar yeeg ñoomi euh, seen ci marché bi. dont les prix fait l'objet de de d'administration. mu nekkoon Aminata Assome Diatta di jawriñ ji ñu dénk wàllu jënd ak jaay ah, tey jii nag mu ànd ak naataangoom Abdoulaye Daouda Diallo ministre finance ak budget doon indi leeral ci yokku gi am ci ceeb bi ci diwlin ji naka noonu tam ci sukkar si ah, ceeb bi nag juróomi dërëm yu ah, wàññeeku ci naka noonu tam sukkar si juróomi dërëm diwlin moom ñaar fukk lañ ci wàññi nee na nag dogal boobu dañ koy tàmb jëfal dañ koy jëfe ci saa si rax si dool tamit taxaw nañ tàmb ngir jaaykat yi jëfe bénéfice ça tout cela. Acte RFM qu'on peut laataa ñu si dellusiwaat des ba léegi ci lu jëm ci wàllum njëkk yooyu nga xam te ni nguur gi wàññi na ko démb ca Tiwaawan nag wa di koy rafetlu ñuy xaar nag ñii di borom boutique yi rawatina détaillants yi daal di koy jëfee reportage Mama Sougane. gannaaw annonce bi nga xamante ni njiitum réew mi Macky Sall def na ko démb ci conseil des ministres ne day wàññi yenn ci njëgu dund gi mu doon ab décision boo xamante ni père de famille bi mi ngi koy rafetlu ñu fekk ko ci buntu librairie am Mamadou Sarr kontaan loolu ci bile décision. waaw wàññi moom kontaan nañ ci. waaw parce dund bi cher na et puis nit ñi seen loxo jotul seen ginnaaw voilà ku ñu wàññi ñu jël comme sa jamono ji dafa métti tamit kontaan nañ ci trop daal fu soriwul dara librairie boobu mu am ab marché bu ndaw ñu fekk fa Leyla Sané ak Déguen Sarr ñu ñëwoon doon dugg si ñaari mère de famille yi nag di feelu Mamadou Sarr rek ca la mu wax loolu moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu parce que dund gi moom metti na loolu moom askan moom ñëpp a koy jooy moom buñ demee ba xam ne na ceeb beeg diwlin beeg suukar si moom dañuy sant yàlla di ñaan yàlla mu gën gën koo wàññiwaat bu baax a baax lépp a seeroon buñ demee nag ba ñu wàññi ko ñoo ngi sant yàlla di ñaan yàlla nag mu gëm kanam ko doon dundee metti na ndaxte boo yoree sa dépense moom foo jaar di nga si doole ndugg bi seer na képp beeg dëwlin ji lépp a seeroon lu doon jar cent franc lu nekk deux cent nga fay jëndee jaaykatu boutique bi Seydou ja moom njàkkareem moo di bu jaaykat yu mag yi nanguwulee topp li njiitum réew mi wax. man ànd naa ci wàññi bi. waaye bu nee wàññi tamit. moom nekkul ni borom bitig yi ñoom ñooy wàññi. ndax commerçant yi mag yi ñoom ñi nga xamante si nii ñoom ñooy importé. ñoom bu wàññi di am ñoom ñoo mën a wàññi. ñun ñi nga xamante si nii dañuy détaillé. ñu door a ñun man a wàññi. mënoo tamit jënd marchandise. mu yokk ñu ni da nga koy wàññi nga ni da ngay wàññi. loolu mu mën a nekk ndax bu fekkee da nga ciy jënd lu bari. loolu boo ko defee tamit sa pertement lay nekk. naam bu fekkee borom kër yi kontaan nañu loolu ci li nga xamante ni njiitum réew mi wax na ko ñoom ñi li ngi xaar bile décision vision ñu réaliser ko ci ni mu gën a gaawee maam astukan fii ci Tiwaawan rajo Futur Media. maam astukan ñu dellu si ci élément bi doon wax sànq jëm nag ci leeral yi nga xam te ni ah, ñii di euh, ministre di commerce ak ministre finance ak budget daal nañ ci indi ci wàññi gi ah, naka noon tam euh, nan lañ ko fa fas yéene doxalee Nafisatou Sylla huile de palme litre bi ñaar téeméer ak ñaar fukk saaku juróom fukki kilo bi ñu koy jaayee léegi ñaari junne ak juróom ñaar téeméer ak juróomi fukk kilo bu ne ñu wàññi ci juróomi dërëm suukar wàññi nañ ko ba témer ak ñaar fukk yu mu nekkon mu don dogal bu président de la république jël ci conseil des ministres demba ministre bi yore wàllum jënd ak njaay nak di wax ni lolé bis bi ne tay lay Aminata assam l'huile et le sucre qui sont des denrées dawlin bi ceeb bi ak suukar si nekk na lu nga xamante dafa soxal askan wi bu baax a baax koor gi di ñëw kon nag njëg yi su wàññeekoo xel mënees na nangu. au niveau international des cours. du blé. ministre bi yore wàllum njënd ak njaay mi wax ni donte sax dinañ def seen kéemtalaay kàttan ba ñu respecté njëg yooyee waaye waxtaan nañu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy dugal produit yooyu ci biir réew mi di importateur yi te dafa mel ni nag politiku noppal askan wi ñor na leen. nous jël nañ matuwaay yi war yépp ngir rek ñu taxawu ba ñu jaayee ko sa njëg yi nga xamante ne moom lañu wax waxtaan nañ bu baax a baax ci njëg yi ngir rek ñu daal respecté ci niñ ko tëralee moo xam détail la mbala grossiste problème bi rawatina si ñiy importer ak concurrent donc euh, je pense wàññi yooyee nag naam am na njëriñ ci way jëfandiku yi dana am ay njeexital ci koomu réew mi waaye ministre bi yore wàllum koom bi ne loole du sonal benn yoon réewub Sénégal Abdoulaye Daouda Diallo. am conséquence ci suñu budget la République moo ko Euh, Sénégalais yi lu toll euh, donc milliards maanaam juróom fukk milliards ci budget bi pour ñu mën continuer de soulager population sénégalaise beneen dogal bu ci bokk tamit di subvention bu juróom benn dërëm ak ñaari fistine ci lii di kilogramme ceebu padi bi di ceebu mbay mi mu jugee ñaar fukk ak juróom benn bi arrangé wul woon na ñi nga xamante ne ñoom ñooy producteur u ceebu mbay mi jëmale ko ba fanweer ak ñaari dërëm. des ba léegi ci wàllum njëkk yooyu nga xam ne mi ngi wàññeeku nguur gi jël dogal wàññi askan wi nag di dund jafe-jafe ci wàllum dund bi ndax euh, lépp euh, seer euh, tax sax ñuy laaj ana yi nga xam ne ñoo taxaw ngir aar way jëfandiku yi ñoom ñu gis ne santuuru leen benn yoon yooyu les association di kuréel yee leen waral aar ñoom way jëfandiku yi ama sayt seen ñu fekk ko muy jënd ci boutique bi jeeg bi sàkku ñu nëbbal ko turam toll ci fanweeri at nee na kuréel gi wundu consommateur yi seen taxaw dafa des ci askan wi. dëgg yàlla de dëgg dëgg yëpp dafa cher. dara yombul man maa si cher dara dara yombul ko bi Ibrahima Meng ab borom kër la tollu ci juróom benn fukki at nee na gisul dara ci taxawu bu association consommateur yi war a taxawu askan wi bagage day yokk lu yàgg bu wax dara dañuy bàyyi ba mu yàgg ba jël temps ñu ko wax te askan yi moom affaire ku ne xam ne li ma jënd nii loo jënd fay 2000 mille francs bo léegi nga jënd ko 2500 lo cinq loo jënd 10000 bo ba nga jënd ko quinze mille wala vingt mille ñu jox ko dara ba tax na moom pour nu mën a jeexal ci moom xam naa ne moom doy na waar dé bu waxee tegaa naka du sensé ndax gars yi suñu yéen maa ngi des di yokk ko wàññi bu bu leen neexal ndar du yokk gën noo mën a dimbali daal ndax naa nun moom ay néew ji doy la ñu jéem a jàppale ba gouvernement mën a wàññi affaire yi moo gën Penda Thioubalo mooma ñu fekk muy lal ab taabalam tàmbalay saam ay sàppooteem ma mu ngi laajte sax dëgg-dëgg ndax association consommateur yi population bi lañ fi nekkal lu ñu defaan defaan rek des na nañ ko gën a ñu taxaw ba nga askan bi gis seen seen liggéey gis seen réew mi lu mu bi association consommateur yi bari nañ li leen défendre intérêt population yi sunu sukkandikoo ci xalaat yi ñu jot a askan wi gis seen ci taxawu boobu nga xamante ne association yi looloo leen tax a jóg. am Saïd Sène mu nekkoon pàccu yaa wuñ jagleel wàllu njëkk yi rawatina wàññi gi nga xamante ne am na ci ceeb bi diwliñ bi ak suukar si mbir moom sax li ñu waxtaanee ci njeexitalu xibaar yi ci gis-gis. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu te wóor. une heure tegal fukki minute way ci xibaar yi wax lu soxal wàllu njàng mi ak coow li. Senika jàngalekat yi ak nguur gi di dajawaat tey jii ndaje bi nag kon ci suba ba léegi ñu ngi ci waxtu bi sa na kon ñanga eh, ca paregula. Tak pareegul eh, tax sax eh, di mbootaay embu para parents d'élèves di yëkkati kàddu nyom nag lini ni bëgg nag am suka ko defee xale yi dellu ci daara yi lu ko mooy nag nee na inapes. ñun daal euh, suñu wax ji benn la. mën ñu comprendre waxtaan woo xam ne ping la chaque fois bu kii waxee lii. ki lay wax lee te amul ñenn ñu mën a seede jotaay yi te ñun yàgg nañ ko réclamé même seen rencontre technique yi war nañ fa mën a ñëw léegi nag comme tey moom mooy waxtaan woo xam ne bi bi nga xam ne bi am nañ yaakaar ne mooy mujjanteel bi parce que syndicaliste yi gouvernement bi nag quand même def na ay proposition syndicaliste ñoom ñoo war a ñëw indi seen i proposition je crois que bu ñu waxtaanee war nañ mën a trouver une solution li am solo ba am solo nag ñun en tout cas ñi nga xam ne ñi ñooy wayjur ndongo yi comme niñ ko nit ñi waxee dañ cee doyal ci mbir mi mënuñu nangu chaque fois mu mel ni ping pong diggante ñaari entité léegi du ñu accepter aussi que constitution bi dafa ne ci article juróom-ñettam bi ne droit à l'éducation xale yi dañ leen war a jàng parce que suñuy doom la ñu jël dénk ko gouvernement bi dal di fay suñuy impôt ak suñuy frais d'inscription bi lépp pour ñu jàngal suñuy doom léegi nag bu fekkee ne tey mbir mi dafa taja témbe ñu dégg te jaral nañu comme ni ko xale yi defee fan bi passé ñu dal di génn génnee aussi xale yi ñu dal di réclamer pour que nit ñu dal di jàng loolu nag gouvernement bi responsabilité moom moom moo ko yore mu nekkoon euh, Abdoulaye Fane njiitu UNAPES euh, di génn ci euh, kuréel yi ëmb waajuru ndongo yi ci Sénégal kon daje boobu boleh gi di wéy diggante eh, syndicat jàngalekat yi ak nguur gi des boleh gi ci njàng mi sooxa tey ji ci diwaanu Mbour naka noonu tam eh, mi di loo xam te ne mouvement citoyen ya fa nekk ñu ngi koy naqarlu leeralek Abdourahmane Diallo ñetti weer ngi nii ñetti syndicat yu yëngu ci walum wér-gu-yaram nekkee ci hôpital Thierno Mansour Bara Mbour semaine bu dinañu bank seen loxo benn wala boog ba ñaari fan mu doon mbir mi nga xam ni ñi fay faju ji ay jafe-jafe yu tar la ñuy ndax yenn dañuy ñëw duñu gis ku faj Bakary Diémé mooy coordonnateur mouvement Mbour Justice ku bëgg faju do dem faji so dee da ngay da ngay déplacé wu de Joal à Mbour wala nga jóge ci all bi déplacé wu ak sa malade ba Mbour ñu ne la médecin grève qui sont les victimes c'est-à-dire que les populations sont les victimes ñi di bëgg a non seulement amuñu xaliss pour faju mais aussi problème polymètre ak médecin yi poser problème mais si problème de grève des médecins à chaque fois c'est deux jours ñu grève donc l'on met soo demee ba am si dëkk war nañ ko revoir war ko xoolaat. wàllum jàng mi tamit dafa sooxe ci mbuur élèves yi mën nañu wax ni ab semaine ngir ñu am sax ñaari waxtu yu ñuy jàng lu metti la mu doon mbir mi nga xam ne lu doy waar la ndax saa su ne ñu ngi ci mbedd yi di génnee seeni moroom Cheikh Ndiaye mooy coordonnateur mouvement kàddu mbuur. suñu doom yi sonn nañ même ñu nekk ci privé sax dañuy dem di leen génn ji dañuy fay seen xaalis ci école yi ñu dem di leen génn ji te ñu ci bëri ñi nga xam ne ñu ngi ci état bi seen kenn doomam jàngewu fi donc dañuy lancer appel enseignants yi ak état du Sénégal

Abdourahmane Diallo Abdourahmane Diallo wàllu wér sax la ñuy des euh, ak euh, campagne bi jëm ci ñàkk euh, tuutànk yi ngir aar leen ci jàngoroy poliomyélite di jàngoro juy la fañ loo naka tey ji nag lañ daal di door ñaareelu ñàkk bi xew bi nag wi koy mandargaal ñu amaloon ko ci centre Gaspard kamara kilifee nag li bëgg mooy ñakk lu ëpp ñaari junni ak juróom-ñaar téeméeri junni tuutànk ngir aar leen ci jàngoroy polio docteur Ousseynou Badiane moo jiite PV di programme bi yor wàllu mi. campagne de vaccination contre poliomyélite bi mu am yéene ñàkk xale yëpp yi nga xam ne nii ñu ngi juddu ba am juróomi at seen lim toll ci doo xaw a ëpp ñaari million ak juróom-ñaar téeméeri junni xale ci Sénégal yëpp donc ñàkk yi dañ koy amal ci ci ci Sénégal yëpp gox goxaat yëpp ci diirum ñetti fan euh, pour. daan mbas mi nga xam ne moo fi mooy mbasu polio parce que ñëpp xam nañu feebar polio daf fi dellusiwaat daaw donc euh, ci fexe yi nga xam ne moom la ñu tëral pour génnewaat ko fii ci loolu la moo tax ñu organiser campagne bi donc campagne bi liñ ci nem mooy ñàkk xale yëpp pour que ñu aar leen ci feebar bi mais aussi dakkal ndox bi nga xam ne doomu jàngoro bi mu ngi koy dox ci jaww ji pour que ñu mën a génnewaat polio euh, Sénégal comme ni niñ ko defee woon at yële passé ci ginnaaw génn ko aussi ci Afrique. nekkoon docteur Ousseynou Badiane dénk ko PV di programme bi ñëpp jëm ci ñàkk ci Sénégal euh, tàmbali nañ ko tamit ñàkk gi foofu lay ca diwaanu Bambey nga xam te ne jàngoro ji dafa feeñaat di polio di laal tutànk yi tax nag ñu euh, am mbébétu ñàkk lu ëpp juróom-benni junni tutànk foofu ca diwaanu Bambey Babacar Diouf. natt nañ li mu xale yi ñu war a ñàkk xam nañ tamit fi ñuy jaar ba jot leen Bernard Seni njoon mooy responsable communication ci district sanitaire bu Bambey. campagne bii de dañoo soxla ñu fexe ba ñu ñàkk du du mët du toll ni maanaam bu ñu jëlee téeméeri xale yi nga xam ne nii ñu ngi doon jur ba am juróomi at war nañ cee ñàkk boo jëlee téeméer bu nekk juróom-ñeent fukki xale ak juróom. fii nag euh, ci Bambey xale yi ñu war a ñàkk ñëpp ñu ngi tollu ci ni ak ñaar ak ñetti téeméeru xale ak euh, juróom fukk ak juróom. mu di district boo xam ne nii feebaru polio dellu si waatoon na fi ci at mii ñu génn ba taxoon ñu amal ci activité de rattrapage. ah demoon na mu wàññeeku ba mu réer sa laay wax. dem jékki-jékki waat ci Sénégal feeñaat ci de Diourbel feeñaat sax ci ci centre Bambey ñu fexe ba loolu tamit ñu mën koo fexe ba aar ci xale yëpp yëpp. du nekk nag activité yoo xam ne nii dina yomb loolu ndaxte fii ci diwaan bi de ne am na yenn waajur yoo xam ne nii ba fii dañuy bañ ku ñàkk seeni doom. waaye seet nañu ne daal ca ba njëkkoon bee passé def na benn ñaari weer xam nañu ne amoon na ay ñi nga xam ne itamit dañ doon am xel ñaar ñu bëggoon rek itamit di gën a ñaaxaat askan wi ndax ñu mën a fexe ba nekk sa doom nga aar ko ci feebaru laago bi. ñetti fan lañu xàppati agent district sanitaire bu Bambey dugg ci askan wi pour xeex feebaru polio mu jóge fi ba faw Bambey RFM Babacar Diouf. RFM rajo wi. wax ci leneen jëm nag ci ñi nga xam te ñooy chauffeur yu Fatick ak Foundiougne tey nag ñu xëy gaare seeni woto euh, daw ñu li ko waral dañuy ñaawlu euh, njëgu pont à péage bu Daxonga pont ba fa nekk na nga xam te ne paas dafa cher lool tax nag ñu soobu ci grève li ñu bëgg nag mooy kilifa yi daal ci jël matuwaay rawatina nga xam te ne ñoom dañ leen a tere ñu yokk paas yi ñoom chauffeur yi. Aminata Goudiaby kenn la ci chauffeur yi nga xam ni bés bu nekk ñoom ñooy daw diggante Fatick ak Foundiougne moom nëbbul li nga xam ni moom moo ko métti nee na yi nga xam ni moom la ñu ci pont à péage bu Foundiougne bi dafa cher trop ba tax na sax ñoom am na ci chauffeur yoo xam ni démb dañu bankoon seen i loxo ne duñu daw cher na métti na dem 2000 francs ñëw paas bi 1200 lañ ko defoon bi def ko 1000 francs ñu delluwaat si francs mais wax dëgg yàlla bi téeméer fay pont bi 2000 francs sol gaawaa 3500 doo dese dara. tey jii ci suba nag ñoom chauffeurs yi delluwaat nañ ci liggéey bi waaye nee ñu ñoom daañu def seen kéem kattan ba ñu wàññi njëg yi am na sax seen ay responsable yoo xam ni dem nañu tase ak kilifa yi ngir waxtaan ci lu ni mel Babou Ndong moom mooy président regroupement chauffeurs yi nga xam ni ñoom ñoo nekkee ci garu cër bu Foundiougne moom nag nee na mbir yi cher na waaye itam d'accord ci ñu yokk prix transport bi ndaxte day metti ci ñi nga xam ni ñoom ñoo di di waytu tukki yi. pont bi cher pour une distance de un kilomètre cinq cent ngay fay deux mille francs francs seer na ba ëpp bus mille camion mille minicar mille léegi nag ñun li ñuy mën a mooy cette place yi nañu yebee mille francs en attendant ñu xool autorités yi ni ñuy def ak état bi mais man du nangu ci biir garage bi ku yebee au delà de mille francs askan yi yeewoo ci Foundiougne itam ñoom ànd nañu ak chauffeur ci li nga xam ni moom la ñuy méttitlu Farba Diouf moom ci rajo communautaire Foundiougne FM lay liggéeyee barki Dembo Ndiaye ambulance bu jël malade quatre mille chauffeur yi nag fi mu ne ñoom nee ñu d'accord nañu ci bañ a yokk prix bi waaye ñoom nee ñu nag daañu ko yokk bu fekkente ne wàññiwuñu tarif yi nga xam ne moom la ñu fixé ci pont à péage bu ni mel Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata bi ñeneen ñi yëglu tam di askanu Jawara di dëkk bu nekk ca diwaanu Bakel ñoom nag li ñu méttitu mooy ñàkkum ndox te li ko waral mooy panne yu bëri yi am ca forage ba naka noonu tam facture yi ne ni day seer lool tax sax ñu bëgg kër gi nga xam ne moo yor ndox mi foofu la diwaan nga di sagesse daal di fay jóge Moussa Magueye Diawara nekk ci département bu Bakel sous-préfet bi di Pape Dieng mi ngi dalal xelu askan wi nee na nag techniciens yi nga xam ne ñooy liggéey ci SOGES muy société bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum ndox mi dina indi ay saafara ci jafe-jafe ndox yi am ci Diawara. unité de potabilisation bi nga xam ne moom moo indi problème bi parce que moom mooy dooleel forage yi nga xam ne ñoo fi nekk ndax forage yi ñuy fonctionné yi ñoom rek mënuñ jox ndox ba mu mag euh, unité de polarisation boobu nag moom installation yi fi nekkoon amoon na jamono yi yoo xam ne day xaw a bëri léeg-léeg coupure ci ñoom liñ ma wax coupure sax day ci guddi gi nag kenn du fa nekk ak doole bi ñu ñëwee am lu yàqu Euh, ginnaaw benn doxu ñaxtu bi nga xam ne askan wi ñu ngi ko doon amal nee na ñu nag jafe-jafe yi ndox wàllum jaawara yàgg na waaye nag li ci gën a tar mi ngi tàmbale ci weeru novembre atum 2021 bi ñuy fay suñu facture facture bi day ñëw weer bu bu jot parce que dana jigéen moo ne ci waañ bi jigéen mooy fóot jigéen mooy togg suñu yi tey ñoo ñu tey lu ko sabab ñun ñii ñoo ko sabab parce que balaa nga dem jur dem ci jàkka jooy julli foog nga am jàpp boo amulee jàpp moom la. problème yooyu en deux jours trois jours dañ ko doon réglé mais léegi SOGES buñ fi ba léegi day gën a métti rek day gën a métti rek te sonn nañu. Ah, ñu nekk ndox amatuñ ko. dañu waroon seen biir nekkuñu fi comme loolu donc dañ fi jógee loolu la ñuy laaj rek on li fekk saafara di am li jaaxal askan wi mooy Diawara nekk benn dëkk boo xam ne dafa tiim ci fleuve Sénégal rawatina fi ñuy duppee Falémé Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média Moussa Omar Gueye bu ñu jógee Tamba dellusi fii ci Ndakaaru wax ci coowal building administratif euh, building administratif Mamadou Dia loolu gannaaw bi nga xam te ne bërki bi kii di euh, ministre Abdou Latif Coulibaly xam ne ne ci RFM ne nag juróom-ñaari milliards la fa fas yéene génne ngir daal di defar yàq-yàq yi fa am gannaaw lakk ga woon ci weeru août loolu nag jur coow ba Forum Civil sa yëkk ci kàddoom di sàkku ci assemblée nationale taxawal commission def ci enquête ngir leeral ko mbir moom nag ñu jox ci kàddu yi député euh, kii di Cheikh Baba Dièye bokk ci bi ne ànd na ci dañ ko war a leeral le euh, Théodore Monteil euh, député de ci Benno Bokk euh, commission d'enquête de l'ERL leeral dara li gën moy yone dal di koy justice Seydou Nourba Cheikh Bamba Dièye di nakar li nga xam dafa japp ne dafa lëndëm am ci projet xat building administratif ne la leeru ci. ma ngi dénoncer ni nga xamé ni moy lëndëm lëndëm ak leunt leunt gi nga xamé nek na ci biir projet bobu député bi nga xamné mo moo ci opposition bi ne commission d'enquête parlementaire bax na ci ngir yëfi dal di leer. dégg na nak ñu né gannaaw lakk gi nga xamee amon amoon nañ fa enquête defoon nañ ko situé nañu ay responsabilité mais lolé doyul.

parlementaire naam baax na waaye lu gënoon mooy ñi nga xam ne ñoo bëgg fi leer dem ca yoon. bo jàngatee règlement intérieur assemblée nationale dañ la nane commission d'enquête parlementaire buñ ko défé ba paré conclusion yi mën nañ ko publier mën nañ ko ñàkk publier mën nañ ko publier partiellement parce que assemblée nationale mo moy jóg pour saytu ben affaire bu gouvernement bi def. maintenant bu fekkee né dañ def commission d'enquête parlementaire ba paré xam ngeen ni suñ assemblée tëddee tamit ba paré bañ a publier affaire bi xam nga lool tamit du indi ben benn leeral. et bu fekkee ne nit ñi dañ xalaat ne que dafa am ay luubal dañ war a euh, constituer benn benn collectif ñu def porter une action en justice loolu moo gën a moo gën a yenu maanaa que commission d'enquête parlementaire parce que actuellement ci ni assemblée bi tëddee oote fi commission d'enquête parlementaire vraiment vœu li tubaab di wax vœu pieux dañ koy wax noonu rek waaye du indi vraiment benn leeral ci mbir ñeneen bokk ci pouvoir bi day député ñu woo leen waaye bëgguñu àddu ci mbir mi dañu jàpp ne li nga xam ne état moom la war a def du ñeneen ñoo ko war a wax ni mu ko war a defee. Seydou Nourou Ba ministre de l' intérieur Antoine Félix Diome moom ci suba ba léegi mi ngi dajee ak ñiy yëngu ci wàllum politique di parti politique yi ñuy waxtaan nag wàllum caution di koppari nit ñi war a joxe ngir bokk ci élection législative yi war a am fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bii ñu dëgmal ndaje mi nag di wéy ñu si dellu si si yeneen xibaar ak ndaw lañu fa teewal di Umu Kalsum RFM bitim réew xibaaru bitim réew Anna Rocha lañ ci àndal soxna Anna ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax Ndiogu. li ci gën a fës di guerre ba am ci Ukraine. waaw benn fan nag euh, gannaaw bi euh, Russie daal di euh, cong réew Ukraine ñu ngi fay nemmeeku lu tollook téeméer ak fanweeri nit ak juróom-ñaar yi ci ñàkk seen bakkan loole bu ñu sukkandiku ci njiitu réew Ukraine am na itam lu tollook téeméeri junni ci ay nit yoo xamante ne daal di nañ daw boobu boobule réew bile yoon bu ñu sukkandikoo ci au commissariat.

africaine euh, président en exercice pardon bu Union africaine euh, Daldina Adou addu ci euh, mbir moomule ci Daldi bataaxal kon nakaram ci situation bi ñu nemmeeku Ukraine jamono ba tax ak euh, président euh, commission union africaine ñu ngi Pati, ñaari patti ñu def seen kentalaay euh, kattan ngir ñu amal foofule ap le feu waji itam tambale ay waxtan mu di conflit bo xamantene nak dina metti daldi di ut safara bu ñu ci professeur Moussa Diaw ndax nee mom enjeu yi ñom ñoo te itam répercussions yi manam gàllankoor yi dina bëri itam bu mu ngi bu ñu

Russes yi ni ñoom loolu mënuñu ko mënuñu ko accepter parce que daf leen de mettre en danger sa sécurité parce que day permettre américains yeeg yooyu wala yeneen européens ñu moom installé foofu ay missiles ak yooyu di di menacer sa sécurité loolu mo déclencher crise bi Poutine tey wane né amna na ci sont nucléaire amna ay ressources amna gaz pétrole am na énergie bu muy jaay yeneen pays européens surtout gaz bi yooyu yëpp ay problème yang nga xam ne dafay dafay changer ordre mondial euh, bu guerre froide bi dañee ñu ne hyperpuissance euh, américaine la ñu doon wax mais bu ñu demee ci biir xam hyperpuissance boobu mënul nekk parce que gis nañu échec ba nga xam ne am am nañ ko am nañ ko en Irak am nañ ko am nañ ko en Afghanistan. et loolu nag dafa wane ni euh, am na yeneen force yu yu émergé Russie d'ailleurs bu français yi organisé ce sommet ak africains yi ñoom itam ñu organisé ay sommet wane ni ñoom itam ci espace mondial bi dañ ci dañ ci dëgër sommet ak pays africains yi nouer ay relation de coopération ak ñoom surtout dans le domaine militaires affaire militaire sécurité qui est au euh, Mali le centre Afrique euh, Nous avons mondial parce que nous avons renforcé nos relations avec la Chine et sur le plan économique guerre bi ñu déclaré y répercussions. Maintenant, Il y a des mm-hmm. répercussions sur l'économie mondiale notamment sur l'affaire pétrole bi dana yéeg ak céréales yeeg ak yeneen produits surtout dana yéeg eh, loolu nag dafa wane ni diplomatie dafa échoué gis nga tax l'ONU eh, wane na ni am na faiblesse parce que mën mënatul def dara ci loolu war na réew yëpp daje wax ci dara pour ñu mën a arrêter guerre bi jox ay garantie yu wër eh, Poutine ci affaire adhésion wu Ukraine ñu différé ko définitivement et puis mën a jox ay garantie yu wër jàmm mën a dellu si foofu professeur euh, Moussa Diaw euh, expert en relations internationales Nek itam kat euh, kon UGB université Gaston Berger de Saint-Louis sànq ci suñu xibaar yi ci français dëgg ngeen fale nakar bi nga Mali Amnenko itam ndax ay étudiants yu Amne na ay doom yu Mali yu bëri yoo xamante dañuy jàng Fofé, Ukraine. xanaa dañuy dem ba Amérique foofu na ñetti policiers yu teewoon ca ba George Floyd 2020 de mujjee sax fatou ah, ñom nak ah, yoon dal da tégi dal dañu gis né ah, dimbali wuñ ko son mhm. ñu ngi tollu ñetti agent yoyu lé eh, ci eh, ñaar fukki at ak juroom ñett japp fanweeri at ak eh, juroom ñett fële ci état bu Saint-Paul kon lañ leen dal di juger lañ leen dal di até ñu gis né dal daal wuñu ki di George Floyd fekk mu ko soxla won bu baax a baax ñoom ñetti agent yoyu lé war na leen até waat bi lé yoon fële ci état bu bu euh, Minnesota pour complicité de meurtre ñi fàttali ne ki nga xamantene mom moom la ñu gën tuumal ci euh, mbir momulé di Derek Chauvin mom itam até nañ ko ba nopi ba dal di ko reconnaître coupable euh, de meurtre ñu tek ko ay daan lu tollok ñaar fukki atu kaso. jaajëf soxna na RFM Sport. wàllu tàggat yaram Georges Dethié Diop lañ ci àndal Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay alaaf ñu yokku wàllum basket moo ci gën a fës éliminatoire euh, coupe du monde 2023 deuxième fenêtre bi tey lañ koy tàmbali. Sénégal fas yéene jongante ak Égypte bu 18h jotee ca Dakar Arena ca jam ñaajo sunu gaynde ñu ne nag euh, noppi nañ donte ñoom ak euh, seen i jàpp nañ ne tournoi bi du yomb soora ci am. Sénégal niki tey ci aljuma ji lay daal dugg ci ñaareelu. fenêtre ñeel segg gi jëm ci mondial 2023 lu jëm ci matcham gu njëkk nag Sénégal Égypte la ci fas yéene jàkkaarlool mu di ab tournoi goo xamante ni naam à domicile lañ koy amalee waaye kay tàggat gaynde yi xamal ñu ne benn match du yomb Mamadou Gueye paa bi. waaw mais tournoi bu difficile tournoi bu difficile parce que soo xoolee euh, Égypte ak histoire euh, Euh, Kenya muy progressé depuis temps et yep RDC tamit euh, waxi nopi mën na nekk tournoi bu metti comme mën na nekk tamit tournoi bu yomb parce que jouer ce si sa dëkk mën na nekk avantage comme ay inconvénients xanaa jéem a góorgóorlu rek ba nga xam ne suñu premier match bi dañ si euh, Euh, dugg bu baax ba nga xam ne psychologiquement benn bépp pression bu amoon na ñu wàcc. mu bokkoon na ci group ba nga xam ni moo amaloon afro basket bu mujj ba ñu doon amalee ca yi fa nga xam ni Sénégal médaille de bronze la fa amoon Papa Malick Dime di ñu xamal ni jamono ji noppi na ngir dugg ci tournoi bi moom Elie Foru gaynde Sénégal yi nag xamal ñu ni moom ak kii naataangooma bëgg nañoo amal na dugg si gu rafet ci gi la jongante. yor nañ groupe boo xamante ne ay ñebekat ay xeex lañu ay te daanaka ne déggoo neen bu baax quoi donc li ñu war a def rek mooy jéem foo gis le maximum possible góorgóorlu ba limiter erreur yi maximiser effort yeeg euh, affaire yu affaire yu positif si match bi. premier match bi nag contre Égypte ku nekk ñëw xam sa rôle lan mooy bi gëm naa ne loolu mooy doon euh, clé numéro un si li ñu nar a approché fenêtre yi nii. jongante diggante gayndeek Sénégal ak pharaon bu Égypte niki tey jii lay doon bu huit h jotee ca Dakar Arena. tournoi bi door nag euh, bi midi jotee jamono ji euh, Sud Soudan ak Rwanda ñooy euh, jongante loolee nag ci groupe D bi la ci groupe boobee ba léegi bu 9h ci guddi jotee Cameroun ak Tunisie ci yeneen i poule ya nag beneen poule ba sax di poule D poule ba Sénégal beneen ndaje ma 15h bu jotee lay doon diggante Kenya ak République démocratique du Congo tey ci suba nag njiital fédération sénégalaise bu football mu ngi doon woo sénégalais yëpp ngir ñu dem Dakar Arena xamante ne di gaynde yi te El Hadj Ndiogou euh, mm. transport bi kenn du fay Dakar dem dik mooy yóbbu nit ña. léegi dañuy wéy Georges léegi wax na saxal wàllum basket ak président ak wàllu football léegi ak président bu FC Metz bom may juróom-benni terrain Sénégal ngir delo njukkal euh, sunu gaynde yi nga xamantene ñoy champion d'Afrique euh, ñen ci ñom ñaar euh, ci FC Metz di Sadio Mané Kalidou Koulibaly naka noonu Bouna Sarr ak Ismaïla Sar ak Pape Matar Sar Bernard Serin dembul ak ko xamle bi ko mi Macky Sall don dalal ci palais de la République njiital fed njiital génération foot di ab partenaire bu FC Metz teewoon audience bobé ñu déglu ci walu Madi Touré Bernard Serin moo ñëw may ko président Macky wax ko et puis bu mu ko waxee président Macky Sall kontaan lool waaw mooy six euh, City Stadium moom la may mooy ñi gagné coupe d'Afrique bi et puis euh, wax ne si six yi ça veut dire que mooy Sadio Mané euh, Koulibaly Bouna Sarr Habib Diallo Pape Matar Sarr moom la leen may te léegi ku nekk sa région foofu lañ koy implanté et loolu day tax tey football sénégalais gën jëm kanam parce que loolu euh, cité stade ni ñuy joué jeu à cinq la en même temps mën nañ si def basket te ku wax euh, jeu à cinq permettra à xale yi ñu yok sen technique te loolu vraiment maa ngi si rafetlu bu baax si récompense bi mu may euh, vainqueur u Euh, coupe d'Afrique bi. football bi ci terrain yi El Hadj Ndiogou hmm. euh, fukk ak beneen lu ay bés bu Ligue 1 sénégalaise ëllëg euh, samedi Tëngéej football club di dalal Linguère bu Saint-Louis jàmbaar di dalal ñi nga xamante ne ñoo di wax AS Douane. wax léegi lu soxal wàllum làmb ak combat Modou Ama Baldé bi nga xamante ne ñi ngi lam-lammee ne ba amati ndax Modou dafa gaañu CNG moom yëgagu ko. CNG nee na boobee report kenn ak gu ko. ku ñu ko ki ñu dénk yooyee kàddu moo di njiital CNG bu lutte bi ci wàllu boppam Bira Sarr ne faw ñu def ab contre expertise commission médicale bu CNG fas yéene kaa def te ba jamono ji loolu amagul Bira Sène ñu déglu ko sànq la ñu jokkook moom. CNG acté gul benn rapport. démb bi ñu demee bay wàcc. à 17h50 minutes pour être précis. recevoir naa fi ñoo xam ne bokk nañ ci groupement bi war a tëgg làmb ji sax. ak euh, koo xam ne dafa bokk ci entourage yi Mamadou Lo ñu di koy dugaloo. indil nañ ma fi ab bataaxal. certificat médical de constatation de blessure. bu ma ko jotee man on a médecin bi nga xam ne moom moo nekk di saytu affaire wér-gu-yaram nit ñi ci CNG. won ko ne ko am na kayit bu ma jot. yónnee naa la ko à l'instant même. et que bëgg naa bu subaa bu xëyee balaa midi nga recevoir mbër mi ñox dudu loo def contre expertise pour xool état de santé fi mu toll loolu mooy procédure yi waaw fekkee ne kayit bi ñu joxe wane ne mënul bëre CNG mooy bind ab bataaxal wane ne combat bii waroon na seq euh, war am ci diggante diwal jiw mënatul am ndax lii moo tax du mun par conséquent dañ koy dàq ba beneen jëmi jamono waaye nag kenn amul droit dem rek daal di waxal sa bopp ne waaw lii dàq nañ teew nekkuloo ki nga xam ne yaay dogal ci làmb ba tey minute ma lay waxee waxal nii ñun ñu ngi resté ci fondamentaux

ak njeexitalu guerre ba am ci Ukraine ci wal tàggat final Ligue européenne des champions dotul amati ci réewum Russie. UEFA moko xagn Saint-Pétersbourg final bobé euh, comité exécutif bu UEFA jël dogal né final bobé ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci wéru mai stade de France ci Paris lañ koy jouer dogal gogé nak li waral ni euh, Russie song euh, Ukraine guerre ba fa ne jamono ji ay négociation mo doon am ci secret diggante njiitu réewu français njiitu réewu France di Emmanuel Macron ak Alexandre Sepharin di njiital instance bu tugal goge euh, mom sax mo sakkoon lu ni mel final ba nak ñu ko japon euh, ci Gazprom Arena bu saint Petersburg championnat yu tugal Ligue 1 française lañ koy doré ak euh, match bi nga xamantene amna tay ci ngoon bu 20 h jotee Montpellier nek ci juróom ñentelu place bi ci championnat bi moy dem moy dalal ñi nga xamantene ne ñoo di waa Rennes féetewoo ci juróomeelu place bi match boobee nak ci ñaar fuk ak juróom bennelu journée journée bi la ci Angleterre première ligue ba di door euh, ñaar fuk ak juróom-ñaareelu journée Southampton ak euh, Norwich moy ñoy jouer tay ci Liga espagnole 27e euh, journée bi le Levante ak Elche ci Italie mom ñaari match ñoo am tay ci ñaar fuk ak juróom-ñaareelu journée ba Milan Udinese bu 17h45 jotee Genoa ak Inter bu 20h jotee ñu jeexle kook Allemagne mi nga xamantene mu ngi door tay ñaar fuk ak ñeenteelu journée ak benn match Offenheim ak Stuttgart. jërëjëf Georges. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. nekk si ci gëstu bi tey ñu jagleel ko wax sa xalaat yi ci rajo yi lu ëpp fanweeri at a ngi nii ñu koy amal waaye li ñu nemmeeku léegi moo ne wax sa xalaat dafa yàqu ndaxte léegi lu neex waaye wax waaye tamit politiciens yi dañoo àcc moo mbir mi gëstu Mouhamed Alimou Ba. Wade amoon na ñi koy jàppale ci wàllu wax sa xalaat kii di Macky Sall moom itam topp na Abdoulaye Wade ci wàllu woowulee te jii kon wax sa xalaat ci rajo yi nekkatul parole citoyenne politiciens ñoo ko jël. la

xarit aw ma ci xaar ma yàlla man sama liggéey laay jiital du coup bu fekkee dugg nga pour wax ci benn thème boo xamante ni choisir naa ko man les thèmes que je choisis euh, day génn toujours ci li nga xamante ni moo di euh, quotidien yi nga xamante ni génn nañu ci jour boobu ci parution yi laay laay focaliser wu donc boo duggee commencé waxtaan ci lenn su ma gisee ni yaa ngi euh, commencé di bëgg déborder rek aussitôt dama lay dama lay waxaat ne la da ngay wax ci thème bi sinon nga xajal sa morom ci Sud FM El Hadj Malick Ndiaye moom itam yor na émission wax sa xalaat yàgg na ci journaliste bi ne daanaka sax xam na képp koo xamante ni jaar na fa Diouf normal Ibra Ndiaye Pikine ginnaaw raay góor gi ci Yoff Ayobalu bala te yi yeneen génération yoo xamante ni Moustapha Mbaye 313 bokk na ci soldaaru Macky Sall Amadou Diop Wakam ak ñeneen na lu xew ñooñu dañ ci dugal seen leew maintenant fu ñu ko jël fu ñu ko jëlee problème bi loolu la parce que maa ngi fàttali ko ci année deux mille quatre deux mille cinq am na ooy la gestion des militants dañoo jiñ sax ne kilifa gu mag moo nekkoon seen ginnaaw di leen jox xaalis sujet bu ñëw ñu accaparé pour gën a rendre visible réalisation pouvoir bi am na ci am na ci ñoo xam ne sax dañuy dem léegi ba am seen groupe whatsapp groupe whatsapp lañ koy am lu ñu wax dañuy enregistré seen bopp dañuy enregistré seen bopp lu ñu wax partage ci groupe whatsapp yi partage ci sociaux yi ne maa ngi diw su ko defee jox kooku mu koy déglu donc léegi dafa nekk genre business. tey jii kon lan la ñu war a def ngir delloo si wax sa xalaat bi ñu xamoon xamatu lay saar. man li ma xalaatoon mooy jël kenn koo xamante ni xam-xamam dafa màcc ci benn thème mu di politique nga xool benn analyste politique bu xarañ waaye nag koo xamante ni féetewul fenn nga teg sujet bi wax ko ne lii la ñuy waxtaane mu indi ci jàngatam bu indi ci jàngatam pendant dix à quinze minutes ñu tëj ubbi antenne bi ku ci nekk nag ci auditeurs yi mën a waxee ci sens boobu. El Hadj Malick Ndiaye bu Sud FM jàpp ni foog ñu relouquer émission boobu lee. est-ce que duñ toogaat xoolaat wax nag ban formule la a adapté revenir ci li nga je pense a wax sa 1998 loolu nag lu ñu def ko mooy ngir may citoyen bi mu mën a yokk xalaatam. waaye tey nañ ko politiciens tribune politique te santé waaye nag rajo yi dañ ci gagné ñoom itam xaalis ndax Le Ñambour hôtel et résidence seen savon yi di créole docteur Touray ak seen gamme Opalia ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Barthélémy Ngom dal leen jàmm dund gu cher gi ci Sénégal ak coono gi mu jural njaboot yi ci seeni ménage euh, tax na ba njiitu réew mi alaaji Macky Sall jël ci dogal ci noonu démb ci ndajam conseil des ministre bi la njiitu réew mi jël dogal euh, daal di wàññi njëgu yenn produit yi nga xamante ni njaboot yi dañu ko yiitewoo daanaka bés bu yàlla sàkk lii la l'observateur xamle soleil daal di lim bu ci nekk toftal ca njëgam liitaru déwlin dootul jar téeméer ak ñeen fukk waaye téeméer ak ñaar fukk rekk lay yem saaku 50 kilogramme ceeb non parfumé léegi 13700 lay jar kilo suukar si nag dootul jar téeméer ak ñaar fukk ak juróom teggi nañu juróom ya léegi téeméer ak ñaar fukk rekk la yem njiitu réew mi Macky Sall yemu ca ndax daal na jël dogalit subventionné kilogramme riz paddy bi dogal gi nag dana am ay njeexital ci budget wu réew mi lu toll ci juróom fukki milliards nguur gi moo ko yennu ci loolu le quotidien jàpp ne Macky Sall dafa servir plat bu bees askan bu Sénégal la tribune feelu ko ne njiitu réew mi tax na ba askan wi nooyi waa teg ci nag sourire vox populi tamit noonee la gisee daal di fësal njëg yu bees yi lu bees moom amagul ca Amon, ci building administratif Mamadou Dia libération bi ñu koy xamal inspection générale d'État ba tey mu kan wala Nyan ñan ñoko def ñu dem ci Sud Quotidien politique la xeyeni ki tay ji ci xëtam wu élection législative yi ñuy wajal ak caution ba ca war mu Antoine Félix Sidjom, ministre de l'intérieur yene bi xamal ñu ne dana ci dajé tay ak ñaari pôle Yi, politique bi ak non aligné yi Sud Quotidien Nena, bo moytuul du doon lu yomb ndaxte birum caution naka Jek dafa indi bëri ay jiixi jaaxa ci langue politique bi ku ci nekk ci pôle yi dafay bëgg proposition wam doon bi gën lu ci am mooy tey lay leer ndax élection yi daanaka li ci des bareetul ñii moom lu bari la ñu dese mooy waa Yewwi Askan Wi source a di ñu xamal ne leader yi dañoo xàjjaloo ci ki war a uutu Dame Mbaye Ba nga xamante ni bi ñu koy fal meeru njëbeel ci kaso bi la ko fekk ci biir coalition bi am na ñu jàpp ne li gën mooy ñu utal ko remplaçant am ñeneen ñu ne sous-préfet bu nga xamante ni yéenekaay bi nag gis ne installé ko dey dafa mel ni wax ko moo gën a yomb jëfee ko ci koo xam ne ma nga kaso am na sax demande liberté provisoire boo xamante ne ay avocat am ñu ngi koy waaj a dugal ngir ñu may ko liberté provisoire su ko defee ñu mun ko installé moom Dame Beye Ba affaire civile la ñu koy toppee dossier bi ma nga instruction ñu dénk ko juge troisième cabinet bu ñu sukkandikoo ba tey ci yéenekaay bi di source a le mandat moom daal di dellu siwaat ci blocage gi am ca mairie bu Géejawaay yéenekaay bi gis ne arme bu bon la boo xamante ni mu ngi ci loxoy kujjee bi tey amagul bureau municipal le mandat ne waa Benno Bokk Yaakaar am nañu légalité waaye dafa mel ni ñu ngi bëgg a ñàkk légitimité ndaxte ci politique dañuy faral di wax ne lépp li loi bi terewul mooy nangu na ko mu mel ni nag moral amatu fa lii nag Benno Bokk Yaakaar jël ko ngànnaay ngir gën a mën a xeex ay dara mu ñu fa fal bees waaye nag yéen kaay bi nee na Ahmed gaa novice la ci wàllum politique waaye du yomb ndax askanu géejawaay ñoo ko fal muy nag loo xamante ni ba tey xamaguñu ci fan la ci wanante di mujjee ki gëtam lii moom leer na ci gët benn fraudeur ca Touba xalif général des Mourides jël na dogal dàq douanier ya ca Touba las moo ko wax douanier yi dootuñu def seeni liggéey ci périmètre bu Touba loolu la Serigne Mountakha Mbacké xamal délégation douane ba fa demoon niki démb douanier yi nangul ko ko xalif bi ci turu njabootu Cheikh Ndiaye Guèye mi ñu faat ni baal na douanier yi ci tudd dootu leen yóbbu ci yoon noonu douanier yi joxe seen jaxal million ak genwal xalif bi jël enveloppe bi jox ko sëriñ Fallou Galas la ak Serigne Modou Mbacké si ñu yóbbul ko njabootu Cheikh Ndiaye l'école bi ak crise gi mu nekkee élèves yaa won ci mbedd mi ni demb di manifester ndax bëgg gréewu seeni kat yi danaka yene kay yépp a manifestation bi niki ki ji les élèves envahissent la place de la nation la vox populi bind le quotidien dolli ko ci né yuuxu nañu demb ba ñépp dégg li leen metti ak it li ñu bëgg seeni message yépp l'info siwal na leen ba ci sax ki nga xamante modi Guy Marius Sagna bi nekkon seeni wet njital FRAPP di sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall mu dégg message bi tukkee ci élèves yi ndax mom njiitu réew mi élève la won étudiant la woon kon boog am na lu mu warloo ak école bi li leer mooy tey la ndaje gu mujj gi diggante syndicat yi ak nguur gi source aané tey lay baax wala boog mu yàqu ba faw li yàqu ci jamono ji mooy diggante Russie ak Ukraine démb ba léegi ñu ngi ci guerre loolaa tax doomu Sénégal ya ca Ukraine tiit jaaxle di sàkku ndimbal loolu nag mooy Sarr mi secrétaire d'état bi ñu denk sénégalais ya ca bitim réew am na lu mu ci waxtaanal ak waa l'observateur xibaar na ne it am na benn cellule de crise ba nga xamante ni installé nañu ko ca Pologne ngir mu gérer situation situation bi ñu daanel ak lamb ji combat Modou Lo Ama balde reporté nañu ko am fukki fan ak ñetti ci wéru mars ni ñu ko bëggee woon li waral nak Modou Lo dafa gañu ci ay entraînement ci mbag mi ci France gamu nek samedi ëlëk gi sax ci la wara dem faju ji fële ci États-Unis yendok jam le nyambour hôtel et résidence seine savon yi di créole docteur Touray ak gam Opalia ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. gis-gis. mbokk yi ñu yegg seeg léegi ci gis-gis euh, gis-gis ñuy waxtaane tey wàllum wàññi tey gi am ci njëkk yi lu ci mel ni ceeb bi diwlin bi ak euh, suukar si euh, naka lañ ko mën a jàngatee ak ndax loolu doy na kon loolu la ñuy waxtaanee ak suñuy gan nar a ànd ci waxtaan wi ak Oumar Diallo directeur di commerce intérieur monsieur le directeur ñu ngi leen nuyu. delloo ziar war nañu antam ci waxtaan wi ak Alla Dia nekk directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal di kuréel gu ëmb ay jaaykat kon waxtaan wi dañ koy door rek Oumar Diallo monsieur directeur gis nañ ne euh, nguur gi kon wàññi na euh, ceeb bi wàññi nañ ci juróomi dërëm non parfumé bi euh, suukar si juróomi dërëm diwlin bi cent franc ñu bëri gis ne wàññi googu daanaka tur bi rek du wàññik dara ndax ay juróomi dërëm ak i cent franc taxu ñuy wax wàññi. waaw ñu ngi euh, ñu ngi remercier ñëpp maa ngi nuyu sama partenaire Aladien euh, di wax ni euh, Sénégal d' abord par rapport ak mesure bi nga xam ne président daf ko jël man je crois que dañ ci rafetlu bu baax a baax a baax ba pare mu sant ko ci loolu parce que gis nañ ni que Sénégal dafa nekk ci monde bi te lii monde bi yëpp di dund moom la Sénégal di dund. mais wàññi juróom dërëm jar naa bàkkoo. waaw jar na ndaxte xam nga juróomi dërëm. ci kilo ceeb boo xam ne da nga ko doon jëndee trois cent franc nga rapporté ko ci saaku ceeb ça te fait mille deux cent cinquante kooku bu ko xeebal ki ko defal nga def la même chose nga wàññil ko cent franc ci diwlin boo xam ne ni dafa vingt litres nga wàññil ko mu waran ko jëndee euh, cent franc nga may ko ko ci mu am ci deux mille franc deux mille franc boobu xaj na ci leneen nga may ko la même chose ci suukar si loolu xaj na ci leneen yow ñi toog foofu naan euh, dafa néew c'est parce que ñoom ku nekk bu ko xeebal soxlaam consommateur nag tant que yaa ngi nekk di ko soulager ci loo xam ne dafay jëm ci hausse je crois que ni loolu c'est une mesure positive. mais est-ce que mënul woon euh, weesu foofu maanaam lu jëm ci sukkar si am lu ëpp wala ceeb bi am lu ko ëpp mais tamit ay juróom ak yooyu noonu. Euh, waaw donte sax comme ni nga ko waxee adduna bi c'est vrai que instant mi inflation dafa am mbir njëkk dafa yokku mais ñi ngi doon xaar leneen parce que boo nee wàññi nit ñi di xaar nga naan juróomi dërëm moo daanaka euh, du wàññi dara. waaw léegi xam nga euh, li ma mën a wax ci loolu rek mooy que ni euh, état effort bi mu def parce que bu fekkonte ni ceeb bi dañuy dem ñu may ñu ko. dañuy ñëw rek jox ko Sénégalais yi mais ceeb bi fi ñu koy jëndee foofu la chéré ceeb bi tey buy dikk fii Sénégal deux cent trente et un franc lay dikk maanaam deux cent trente et un mille franc la tonne tegagoo frais port yi tegagoo marge bénéficiaire tegaguloo dara état moo jël mu ne man ci ceeb bi ma ci laaj benn droit de douane renoncé pratiquement à vingt cinq milliards loo xam ne dañ ko waroon jël ñu bàyyi ko ci ceeb bi pour que consommateurs yi mën ko mën ci mën ci jëriñoo gis nañ ci wàññi cinq francs gis nañ ci wàññi dix francs tey ñu dem ba vingt cinq francs loolu dañ koy sant président de la république parce que ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di yëngu ci secteur bi hum. xam nañ ni que lii effort bu ngand la hum. nañu seet li ñu wër li ñu wër tey dëkk yi ñu wër tey boo leen fa demee ku mu mënti dem kilo ceeb ñu ngi quatre cent cinq cent litre dëwlin Côte d'Ivoire dañuy defar dëwlin Côte d'Ivoire bi nga xam ne ñun dañuy dem foofu di jënd dëwlin mhm. tey ñun ñoo leen gën a yombale dëwlin te Côte d'Ivoire ñu ngi ci mille cinq cent mhm. mais suukar si est-ce que mën nañu wax ne euh, wàññi am na ci njëgu suukar bi ndaxte xam fa fan yi passé euh, yi dañoo yokku teg ci juróomi dërëm daanaka nguur gi deful lu may delluwaat njëg la fa mu newoon est-ce waaw xam nga bu fekkee ni yéen a ngi suivre li xew ci àdduna bi di ngeen gis ne que tey waxtu woowu noonu suukar bi nga xam ne ni moom la ñuy jëlee bi bitim réew dafa jóge cinq cent dix euros dem ba cinq cent soixante euros tey suukar boobu ma lay wax ni mu ngi jar cinq cent quatre vingt euros boo ko bëggoon dugal fii ci réew mi sept cent francs la kilo bi di jar pour bañ kilo suukar bi demoon sept cent francs moo waraloon ñu tënk ko ci six cent vingt cinq président de la république dellu si ne nañ ko gën a wàññi ñu liggéeyaat ci xool ñi nga xam ne ni ñoom la ñu mën a bës ci seen i marge wàññi ci seen marche te foofu ñi ngi saluer aussi li nga xam ne ni moom la ñuy am. sukar si dafa dellu woon si njëkk li mu nekkoon daanaka suukar si mën ne ne dafa dellu ci njëkk la mu newoon. waaw mais loolu laa la wax dama la ne li ko jëlee woon ci njëg bu 600 francs bi ba mu dem 625 c'est parce que dafa yokku ba jéggi dayoo. bu dee bu ñu ko bàyyi woon noonu dara dem sept cent gannaaw nag léegi wàññi nañ ko delloo waat nañ ko six cent franc mais wàññi waat nañ ko parce que même bu dul dara am na commerce consommateur bu ko jot a jënd six cent vingt cinq kooku wàññi lañ ko ko mhm. suukar si moom vrai problème la Sénégal étant donné que am nañ CSS ba pare amuñu suukar bu doy di importer suukar ba pare suukar bi di cher ci askan loolu tamit nguur gi war na ci liggéey ba nga xamante ne suukar dina doy te dina yomb tam pour askan Sénégal parce que am ma may ma foofu rek ma wax la le sucre local pendant 10 ans depuis 2012 2022, le ba 2022 sucre ñu jëndé 545 francs le kilo à la compagnie sucrière donc pendant 10 ans mom ñu ngi teunk prix pendant 10 ans mom ay chargé. mu ngi pendant 10 ans mom personnel mu ngi yokku lolu kenn répercuté wu ko kon nag bu ñu fi taxaw pendant mais dafa am réalité sur le marché coût de production yi joué li état bi pour contenir prix depuis dix ans dara changé mais contexte international bu évolué ñëpp di dund mais ñun Sénégal nous toog fii nan nan warul warul warul warul bouger warul bouger dina moment prix rek mais tollaguñu foofu fii ci Sénégal parce que effort état bi. Mhm. mu ngi def tout le temps les efforts pour que ñu mën appliquer la vérité. Mhm. Mhm. léegi nag euh, problème bi moins application mesure yi ndax gis chaque fois nguur gi day jël dogal ne wàññi nañu génne arrêté parti de tey effet immédiat wàññi nañu mais commerçant yi dañuy lànk ne duñu wàññi tant que seen stock jeexul loolu tamit lan ngeen fas yéene ba nga xamante ne ñëpp daañuy jëfe dogal bi. ni ñu daan def ak euh, commerçant yi rek maanaam état bu jëlee décision état daf koy appliquer état bi mu jëlee décision bi c'est d'application immédiate parce que ça c'est le principe mhm. mais comme dañu nekk aussi dans dans le domaine juridique il faut un arrêté de fixation des prix arrêté bi defar nañ ko arrêté bi bu ko ko à tout le monde te tey lay tey tey tey lay doon mhm. mais dañ les kon dina arrêté bi dina génn fi mu toll nii génnagul mais dina génn tey fii ak ngoon inshallah, mhm. inshallah. incha allah suñu partenaires commerçants yi jot nañu ñoom i tamit taxaw wax ne bu nu leen bu nu leen wanee arrêté rek immédiatement ñoom tam ñu appliqué. mais am na tamit ñu taxaw am na tamit ñuy lànk ne tant que lañu seen stock bi ñu amoon jeexul du ñu wàññi dañ la koy wax carrément rawatina détaillant yi. loolu la ñuy wax xam nga loolu. loolu ñu nag ñoom ak état la bu boobaa état mooy taxaw seen kanam parce que bu fekkee ni marchandise dafa yokku doo gis benn commerçant détaillant buy ñëw foofu RFM naan leen ñun yokk nañ gaa mais dañ leen di xaar ba suñu stock jeex ñu soog appliqué yokku voilà donc comme lo la demee bu ñu wàññee nañu jàpp ni aussi dañu war a wàññi immédiatement. directeur may ñu ñu jël Alla Dieng ñëwaat ci yow Alla Dieng teew na euh, directeur exécutif bu Unacois Yessal euh, Alla ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Euh, nguur gi jël na dogal wàññi ceeb bi diwlin bi ak suukar si ceeb beeg suukar si juróomi dërëm cent franc ci diwlin bi problème bi mooy commerçant yi saa yu nguur gi wàññee ñoom dañuy bañ ne duñu wàññi ndax stock ba ñu am tànk jeexul duñu mën a wàññi te bu ñu boo koy yokk ci saa ñu daal di yokku est-ce que lan moo waral ba commerçant yi du ñu jëfee eh, ndigal yi wàññi njëg yi. non non duñ ko jëfee dans l'immédiat mais danañ ko jëfee c'est-à-dire doo doo mën a. jël mais mesure à effet immédiat kay leer na ci saa si mais mais ma tontu la à effet immédiat ça veut pas dire que jël nañ ko démb ci ngoon hmm. tey hmm. bu génnee kay nee na bi dina génn fii ngoon bu génne ñëpp war a jëfee arrêté bi génn arrêté ñu wax mesure démb tey suba nit ñi dem ci bitig di jënd ne il faut ngeen wàññi loolu aussi nit ñi quand nañ nañ dem dans bon sens quand même ah déjà notification même bu ñu ko jotoon ajuma sa euh, lundi lay commencé effectif parce que samedi dimanche nan nga fi mën dem renouveler stock wala nga am mm, mm, stock mm, jënd ko xaaral am stock jënd ko nangam ma wax lu nekku ci ma loolu dëgg nan nga jël mesure démb ci ci ngoon conseil des ministres démb ci ngoon président recevoir na UNACOIS Yessal pour wax ne bala muy dem ci presse bi dama ci partagé ak yéen ci conseil des ministres euh, conseil bi ci suba gi la amoon ci ngoon gi RTS moom njëkk wax prix yi léegi démb tey ci suba nit dugg ci bit dem ci bitik na léegi li ministre bi wax dañ dañ ko war a appliqué notification sax génnagul loolu aussi bu bu ñu ko waxee nañ nañ joxe information bu nit ñi mën a jëriñoo. pour dire la vérité. mais notification bu génnee arrêté génne kayit wane na njëkk yi wàññi nañ ko ñëpp ñoo ci war a tënku amul. ay ah, arrêté léegi nag ku ci ku ci tënkuwul hmm. ku ci tënkuwul na nguur gi daal sa kaw. ku ci tënkuwul na nguur gi daal sa kaw. voilà mais commerçant yi est-ce que ngir jëfe ko loolu ngeen war a wax commerçant yi ñëpp jëfe ko xam ne bu arrêté génnee rek kayit euh, dogal génn na ñëpp ci war a sàmmonteeg moom garage yoogu man kàddu UNACOIS Yeessal laa yore damay wax ak directement membre UNACOIS Yeessal yi ak ñeneen ñi nga xam ne duñu suñu membre mais bokk euh, am suñu sympathie gen la yoonu dégg nañ li wax mhm. ñun en dehors prix yi ñun koor gi bu masaan ñëw waxuma sax mbas mi nga xam ñëpp la sonal mais koor gi bu masaan am marge bénéficiaire cent franc wàññi ko def ko soixante quinze franc ndax koor gi te loolu am nañu ko daan appliqué du ma ne ñëpp mais am nañu ko daan appliqué mhm. donc kii wax loolu di renoncé ci marge bénéficiaire du du du du du du suuf ci loo xam ne état bi dafa renoncé ci cinquante milliards mhm. loolu effort exceptionnel boobu état def ñun war na def lu ni mel mhm. waaye nag daanu dajul suuf te commerçant yëpp lënkuñu genn genn kàddu da wax ñi nga xam ne ñu la déggal ñoo ci appliqué mais doo doo obligé yëpp ñu ne état moo mën a def loolu na état wut wut nombre de contrôle économique yu wër ci marché bi ku ci deful yooyu ñu dal sa kaw. Hmm. commerçant euh, consommateur aussi boo xam ne dem nga ci marché ñu jox la ay prix yoo xam ñu mënul maanaam nga doon dénoncé ko ñu loolu lañ ci man

situation mondiale tamit euh, ni mu tëddee. waaw loolu dafay wone leen rek mooy que ni état bi euh, dafa am li ñuy wax flair maanaam euh, lii mooy wane ni que yàlla suturaal nañu ba heureusement que jël nañ mesures yi nii. parce que bu fekkee ni jëluñu ko woon li nga xam ne ni moom mooy xew Ukraine pratiquement dafay am impact immédiat ci sunu biir marché bi. donc may dalal xelu ñëpp di leen wax ni que li xewu Ukraine effectivement dafa am impact ci déjà prix parce que. Mm-hmm déjà prix euh, euh, baril de pétrole bi. Mhm. jóge na ci 75 euh, dem ba 100 dollars. té baril de pétrole bu yokkoo ñi nga xamné ni ñom ñoy jëfëndiko pétrole beeg ki bi carburant bi manam fret bi fret bi dafay yokku. Mhm. fret bi bu yokko nak da fay gëna indi problème. ci li nga mhm. xamné mom moom jëfëndiko même blé bi tamit Ukraine bok na ci. waaw koy gën produire ci aduna bi. li mëna tax mu yokk côté bobu lay jógee. wa xam nga lolu da fay am impact ci marché bi mais li may lay tontu rek moy que ni xam nga état bu défé ay effort budgétaire

boo demee ba jeexal sa disponibilité subvention nga ne nag léegi damay appliquer vérité des prix mhm. mais toll gu ñu foofu mhm. ñu ngi toll ci état foo xam ne ni dafa nekk tey muy renoncer à cinquante milliards ci ay recettes pour soutenir les prix mhm. daaw état bi renoncer na à quarante sept milliards pour soutenir les prix te bu ñu fàttee aussi ni que en deux mille vingt génnee nañu mille milliards dont Euh, jël cent mille tonnes ceeb yoo xam ne dañu jël dugal ko ci biir consommation bi distribué ko à toute la population. comme force Covid 19 ah, loolu bi teg na ko. Mmh. mais sa waay. Euh, loolu ngeen di additionné capitalisé. ba pare ngeen ko mën a wax ni ko wàññi bi néew na mais loolu ku ko gis doo xam ne ni que li état bi effort yi mu def. jërëjëf extraordinaire yoo xam ne dañ koy rafet. jërëjëf monsieur directeur Mor Diallo ñu koy sant di koy gërëm jeexale ak euh, Alla Dia euh, Sénégal euh, xam na ne lu bëri ci li ñuy dundee ci bitim réew lay jóge est que tey jotul ñu xool ba nga xamante ne consommation locale gën ko dooleel ba nga ceeb beeg yeneen nga xamante ne daañu ko fi mën a bay su ko defee dina yomb ci askan wi. man mesure yu bari la mais bi ma ci gën intéressé mooy soutien à la production locale. Mm-hmm. on importe trop. li ñuy jëlee bitim réew dafa bari ci produit yëpp nag. Mm-hmm. nañ xool lu ñu mën a bay fii am na suuf am na jant am na ndox àll bi mais qu'est-ce qui empêche que ñu renforcer davantage l'agriculture. Mm-hmm. mais je sais qu'il y a des efforts quand même depuis PRACAS. bu baax chaque année production bi yokku même Kébisa waxoon nañu programme national d'autosuffisance en riz 2017 sax mo nekkoon échéance bi ne dañ ko am mais ba légui ni dara sotti non d'accord autosuffisance alimentaire jotaguñ ci mais bari na aussi lu tey ñu jot ci bari ay gàllankoor mais peut-être ñu sentu ko 2023 peut-être 2024 mais je peux vous dire que tant que ñu fa dañu continuer di jéggaane bi réew te légui production locale qualité bu baax la Hmm. Euh, te variété yu bari la ñu aussi. Hmm. léegi nag effort boobu président wax ne danañ ko def ngir jàppale production locale ñun dañuy applaudir parce que gis nga commerçant bi. Hmm. limi muy jaay mu jóge bitim réew euh, amee li muy jaay mu ñoree ci fii ci réew mi lay yebale moom li mënul def rek mooy jaay perte waaye lu mu gis. mu ko jaay am ci dara dana ko jël jaay ko te moo tax ñu ñu soutenir la consommation et la promotion des produits locaux. Mhm. jërëjëf Alla Dieng ñi koy sant ci koy gërëm Alla Dieng directeur exécutif bi nag di santam di commerce intérieur mbokk yi mu nekkoon euh, gis-gis euh, nekkoon xibaar yi ngeen naan doon ceekee laa si njóogu jën ci micro bi yu Baax ci machine bi euh, Ibrahima Ndour ak Abdou Thiam ci production Yacine Poy ci digital bi ci kanam tuuti yi ak tàgg